fàttaliku taxawaayu sëriñ Alaaji Baara Mbàkke Falilu mi nga xamante ne tey taalibe bu ne taalibe benn bu nekk yëngër ab taxawaay bu am solo boo xam ne taxaw na ko ci yoonu murit ci yaatal wante woyof lool di yëkkati ay tànkam waxtu ci nekk di nemmiku njabootu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul sëriñ alaaji baara mbàkke falilu ginnaaw bi mu wutoo sëriñ touba di xalifa sëriñ touba boole ko xalifa seex amadul faadil mbàkke jéegoom yi mu seq rëy lool yaatu lool daal root ci biir touba sëriñ alaaji baara mbàkke falilu doonoon kenn ku ñëpp yëkk ci woyofam ak yaatoom yan na yàlla doon leeram guddul fanu sëriñ Moustapha ak njabootam ba dañu yéene liggéey ñu yët liggéey ko yoonu seen maam ji sëriñ touba xaadimu rasul jikko yi ñu gën a ràññi ko Cheikh Amadou moom mooy ak muñ taqwa ak muñ muñ ci ñaari yëpp ñaari anam yëpp muñ mbokk yi ñaari muñ la yoo xam ne de sa ngay xaajaat ci biir ñaari muñ ñaari muñ yi mooy muñ ci jafe-jafe ak naqar ak tiis ak metit loolu muñ yu bari ñoo lañ xam waaye muñ ci des mooy muñ ci bànneex muñ ci alal muñ ci daraja muñ ci yu baree bari ci yooyu ñaari muñ yooyu yu jafe la muñ gi ci moom sama classe bu baree bari li tax ñu koy muñ mooy amuñ pexe amuñ pexe da ngay jéem la nga man lépp doog ne naa jéem a muñ doog ne naa jéem a muñ muy jafe-jafe amee ku ne xam ne Cheikh Oudou Fadal radiyallahu anhu jaar na ci ay jafe-jafe loo xam ne bu dul woon mandragoo jikko ju sell ji ñuy wax muñ kon nag ni buñ koy nettali histoire am na page yoo xam ne dañ koy tëb waaye nag mën a muñam nga moo waral lu ko yàlla teg directement nga xam ne ci yàlla la jógee directement jëm ci moom maanaam mu muñ ko ba yàlla xam ne muñ na ko lu yàlla jaarale ci ab jaam it dana ko muñ ba yàlla xam ne jaaral na ko ci ab jaamam waaye nangu na ko muñ lu fooy mas a ci ay tiis ak métit ak lu masa ñëw ci moom ñëw ci ab daram ñëw ci jëmmam ñëw ci lu nekk xam nañ ne muñ bu jéggi dayee ko moo waral ba tey nëgë ni kenn mënu koo waxal lenn lu ak a a muñ waaye ñaareel ba mooy bi mu dundee jafe-jafe dund ay métit dund ay tiisit bi xéewal ñëwee lépp ñëw barke ñëw lépp ñëw foofa it muñ yomb fa ndax bari ñoo xam ne melul nenn ba ngaa xam ne melul nenn mooy seen jamono soppi ko bu seen jamono soppi koo rek nga xam ne na nga yaakaaroon na lañ mel melul ni waaye Cheikh Amadou Fadal bi jamono soppi koo mu daan xëy daan am ay fan du taal njël du taal njël na ko na ko yonent bi daan daan daan dund dund ku métti bi mu ba lépp xëpp ci loxoom it teewul mu si boppam maanaam mun lool am sago lool ba taana li li nekk ci loxoom musu cee def tasaruf maanaam musu cee soppandiku benn yoon lu ñu naan tey lii day jaaduwu doon wala lii day rafetul loolu muñ bu jéggi day moo ko moo koy waral muñ ci ma muñ bañ a mooy yàlla ak muñ ci jaamu borom bi subhanahu wa taala yi bokk na ci jikko chambre fadal yi mu doon ràññi mooy dëddu àdduna dëddu àdduna az-zuhd dëddu àdduna sëriñ Fall bokk na ci yi mu doon ràññi daa bokk ci yi ñuy tàggee nit ku baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit mas na koo fekk benn saxaabi mas na koo fekk mu tëdd maanaam li mu tëddoon da marqué ci lex bi mu ne ko cay yow yonent bi yalla bi yow nga xam bo ne won doji sax ñu soppi ko or mu soppi ko or ngay souvel sa bop toroxal sa ni de do ni aduna yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko man luma luma sekk ma séq ak àdduna jotuma ak àdduna lu may lu ku doon tukki dem ba dox ba sonu jaar ci keru garab di sam fay am kep nak du ko jaral nak soppi len du ko jaral tek ay bagasam man kon séquma ak àdduna lumay dama fay jaar rek di jall loolu bokkoon na ci li suñ fàllu gënoon ràññi ko ci léppam nag loolu mbokk yi waxtu mu ñu may dëgg-dëgg ngir ñu man cee puus yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci lu bare baree bari ci loolu nga xam ne moom mooy dëddu àdduna bàyyi xel ne yàllaa la bind bàyyi xel sa barab ba nga jëm doy dal gum daan doy dal àdduna yonent bi wax na ko ay yoon yoon ànd na ak sahaaba yi benn bis ba njàgg mu romb xar mu dee xar mu dee ba médd yàqu lool yonte sallam di ko xool ba càggam ne sahaaba yi waawul xarmee de xanaa borom soxlaatu ko juróom ah déedéet xarmee kay borom soxlaatu ko mu ne ni yàlla ñàkk soxlaa adduna moo ko raw ni yàlla ñàkk soxlaa adduna moom moo ko raw bokkoon na ci jikko chambre fadal yi mu gënoon a ràññi koy mbokk yi mooy mën a jéggale al afu mën a jéggale mën a jéggale jikko yu rafet yépp baax na waaye jéggale yombul bari waa na ñoo xam ne bu ñu jekkoo rek doggulee bari waa ne ñoo xam ne saa boo xam ne jàppee ne jéggale nañ jéggale wuñ dañoo jékkagul waaye bu ñu jekkee nga xam ne duñ ay jéggalekat Cheikh Ahmadou Fadal radiyallahu anhu nag moom bokk na ci jikko yi mu gënoon ràññi ko mooy lu ko waay masa def da la koy jéggal daw topp kenn ci lenn bu bu ñu ko yu mayee ba ñenn ñu doon def ay xasire ci moom yi ñu ko doon tagge bokk na ci mooy Sëriñ Fallu dafa yéeme woon ci danaan fàtte lu ñaaw lu ko du def xam nga kii kii kii fayu mooy ki nga xam ne li nga ko def da koy denc saa bu jeg ko rek fayu sëñ Fall nag lu ñaaw liñ koy def moom daf koy fàtte bokk la ci gën a yéeme it mooy lu rafet li muy def da koy fàtte maanaam lu ñaaw li ñuy def ci moom da koy fàtte nit mas na ko def ci moom lu ñaaw waaye lu rafet li muy def jëmee ko ci nit ñi it nit ñee koy fàtte di ko waaye moom fàtte na ko bu ko defee loolu jikko ju sell la joo xam ne day wax ne bu dul woon jéggaleem nga bu dul woon mën a jéggaleem nga it lañ waxoon rek lañ wax kon nag ni des na ko nettali ci histoire loo xam ne buñ ko àggee duñ bëgg duñ ko bëgg a waaye nag mën a jéggale nga mom moko waral borom waykat dafa waxoon ne wa qatala al ahrara kal afi anhum wama lak bil hurr alladhi yahfadhu al yada idha anta akramta al karima malaktahu wa id wa in anta akramta al laima tamarrada fa wat'u nada fi mawdi al sayf bil bil ula mudirrun ka wat'u al sayfi fi mawdi al nada borom xam-xam dafa wax asgor asgor bokk na ci li ñu koy jéggale mooy jëflanteeg moom jikko ju rafet yi ñuy li ñu koy li ñu koy moomee mooy jëflanteeg moom jikko ju rafet yi ñuy wax jéggale sëñ Mbay Jaxate fa waxoon sëñ Tuubaa di ne ko yaa yow yaa xam ni ngay yeewes gor ba dootu fa jug teraanga ngay yeewe asgor pinti pantangam teraanga ngay yeewe asgor pinti pantangam mooy asgor boo ko bëggee moom da nga koy taral boo ko bëggee moom da nga koy taral bari waa ñoo xam ne fekk leen keppaar suñu fal dara wala lu may jikkooy rafet yi nga xam ne moom nekkoon ci moom bokkoon na ci it bokkoon na ci it mooy jikko ji nekkoon ci moom mooy mbañum rus la maanaam nit koo xam ne day am lu muy jomb am lu muy bañ ñaan na jamono ñu da ko sóoraale xam nga day àgg jamono joo xam ne boo wëtiwut sañ sañ nga lu loolu suñ suñ tubaab ko sañ nga ne ak loo defut da neex lépp xëpp sa loxo maanaam du tee nag ngay ngay bàyyi xel na yow am maanaam da nga am looy jomb dangay am looy bañ da nga koy dégg ca wayoo ba mu koy wax mu naan man day bu ma baree lu may kaf bu ma baree lu may kafit du tax ma kaf ba nag ma wax lu lu wérut maanaam jamono ji ne bu may wax damay som sàmmaale mbañum rus mi wamal matu illa xaytu yajalu nafsahu fakun taliban fi nnaasi alal maratib bokk na ci ay jikkoom it yim ràññi ko woon mooy alqanaa mooy doylu doylu maanaam nga xam ne du mébét bariwul ay mébét doomu aadama yi ñun ñëpp li sonal mooy bari mébét yu gudd mébét yu bari bari ay soxla bañe day lolou yu yalla defal kep manam day wax ni jambat, mi yep ñun ñep ngi jambat ñun ñep ngi jambat waye bari waani ci ñun ño xamne ne mu bari mi manam nimit yu bari moko waral ak ñak doylu waye yow bo li nga sol di jambat teew bo évaluer won li nga sol évaluer portable yi nekk sa poste manam bo évaluer la muy jar ci xaliss ba sa wajur tol ni moo tol ni yow lim am lepp boko kada dagale won tul non yow ngay and ak mo dox terul du te te ngay jambat du tee ngay ñaxtu du tee du jeex mooy ñàkk a doylu moo koy waral Cheikh Amadou Fadal nag bokkoon na ci moom li mu meloon mooy dafa doylu woon dafa doylu woon ba lépp lu ko borom bi subhanahu wa taala lu borom bi dogal ci moom rek mu neex ko ni ko borom bi dogalee doomu aadama bu nekk nag war na ci bàyyi xel ne ndekete kon doylu day bokk ci yiy yëkkati nit ki day bokk ci yiy dara jaal nit ki afadat nil qanaatu kulle isin wa ayu gina aasu min alqanaa fa sayirha li nafsika rasa maalin wa sayir baadaha taqwa bidaa waykat bi dafa waxoon ne na nga fexe ba xamal ne daal boo bëggee tedd boo bëggee am tedd nga nee na na nga am ak doylu nee na na nga jël na nga jël doylu nga def ko sa capital nanga nga jël doylu yonent sax neen alqanaatu kansun laa yafna maanaam doylu alal la joo xam ne du jeex ba mukk waykat bi ne kon boo bëggee boo bëggee alal sa kopp sa capital na nga ko def doylu nga ne ko lan laa jënd samay samay marchandise lan lay doon mu ne defal ragal yàlla muy sa muy say marchandise bokkoon na ci jikko yi ràññi ko mbokk yi ngir sàmmante ak waxtu tuuti rek mooy diisoo Cheikh Amadou Fadal ku ñeme woon ab diisoo la ku ne xamoon na ne daa jëloon ay bariwaan a mag ñu nekkoon ci keppaaram ñoo xam da leen woo ba ñëw mu ne leen li ngeen fii jariñ weesuwul ñaar yii mooy bu mu fi amee ak munu fee ñàkk bu mu fi amee ak munu fee ñàkk maanaam mu nar a jël décision ci mbir moo xam ne jëgul yéen mag ñii boobaa bu leen ma seelaan ba mu jàll ngeen naan sëñ Fallu waru ko woon a def nee leen ma bi mu fi amee léegi mu daal di mbir moo xam ne nam naa ko bañ a def jël leen di soo léegi ne ma sëñ bi lii mu da ñàkk mu daal di def loolu kon bokkoon na ci jikko yi xam ne moom la gën a gën a ràññi ko moom Cheikh Amadou yi waxtu yi moo ñu dul may ñu yaatal dëgg-dëgg waaye kon yu baree baree bari bari danañ ko indi waaye dañuy ñëw rek ci ci ngir waxtu wi li ñu joxoon ñëw lii seede sa wax yi wax yi ma wax ci koo xam ne gone la jamono te woog sëñ Fallu maanaam dundoo ak moom nga xam ne maanaam li ngay wax lan moo koy firndeel danaa ci indi yenn yu néew ci yoo xam ne day day firndeel Cheikh Amadou Fadal la daal lii may wax ña jamonoonte woon ak moom ñoo ko dund ak moom wax ko ci moom waykat yu baree bari la ñoo xam ne wax nañ ci ñenn ñi naari gànnaar lañ ñenn ñi ay sénégalais lañ ñoo xam ne ku nekk ci ñoom buy wax da ngay yëg ne li ñuy wax suñ fal lu lum lum lum gëm la ibnu hanbal alxasan yi ba muy tàgg sëriñ fal radiyallahu anhu bayit yu gudd la waaye yenn yu néew lañ ci indi yoo xam ne day màndargaal ci jikko yi yi jëm ci jikko yi lay indi ma ngay wax naan ci baxru tawil fatan majidun lam tabsuril aynu mislahu ولم يشتمل مثق إلى مثله أثنى تشنفت الأذان من حسن صيته فهام به كل الأنام كما همنا فما هو إلا الشيخ قطب زمانه هو الفاضل المفتال ذو المنتب الأسنى كريم تلقى من أبيه مكارما ترقى بها صعبا من المجد وقتنا جواد كأن البحر من طير كفه ولو الله كان الجود لفظا بلا معنى oyu neex la lim feeñal fii mooy tabuk sëriñ Falil radiyallahu anhu bayit yu mu jeexal laay laay wax dana daal sëñ Fallu ak tabam ab joxeem bu ma saan joxe ne yonent bi daan joxe ñu naan day da joxe joxe ku bañ a koo xam ne du faale ak sëriñ Fallu noonu daan joxe mu ne joxe ak joxeem bi daal day mel ne géej lim daan joxe day mel ne géej boo ci tànk ci ndox ni muy ñàkk yëgal yaramam ci li muy li fiy jógee noonu sëñ Fallu bu masaan joxe noonu lay ñàkk yëgal yaramam ci li fiy jógee dal ni maa ngi leen xamal ne tabe tabe bu bu dul woon ak sëñ Fallu ab baat la boo xam ne maanaam du leer ab baat lay doon boo xam ne maanaam du leer kooku wax na ci yu bare bari waaye waxtu yu moo ñu du may waaye am na fu ñuy waxe naan tumayyisuhu tumayyisuhu siima anin naasi innahu عن الناس سيماه العلا والمكارم إذا جاء جاء القير عند مجيئه ويذهب من شر الملمات داهم به متاع به متاع الرحمن أهل زمانه زمانا طويلا عيشه فيه ناعم دل أم أقبنا ويمناه لا زالت كذلك دائبا تفيض عن العافين منها غمائم muy leeral la lu mel ne lam leeraloon fee rek ki tabak Cheikh Amadou Fadal radiyallahu anhu mais yàlla bind woon na koo xam ne foo mun a tëll rek xéewal dal na tëll saa boo xamee ne wan na ginnaaw foofa laneen na fay ñëw waaye suñ fàll moom xéewal kese la àndal daana wax ne it jirim yi muy way ci bayam naan jirim yi moo leen yoroon miskin yi moo leen yoroon ñi seeni borom kër nelaw suñ fàll moo leen yoroon nee na dana ñëpp moo leen daan uuf di leen defal loo xam ne ñañ jaaxle ba tumuraanke ko bu ñu fi nekkoon dinañ ko dinañ ko defal yooyu kooku it way yu gudd la waaye dañ ci doyloo yooyu ñëw ci keneen sax Siriya Baabu moom it way na sëñ Fallu lu bare bare bare bare waaye bokk na ci ay wayam yuy màndargaal jikkoom yu rafet yii fu muy waxe ne moom Cheikh Sidiya bushraaka yaa qalbu hada sayidu lkurama wa mafqaru lkulli min amsaalihi aluzama laa taxsha min baadi أن وافيت منزله فثق وكن لقضاء الحاج مبتسما ويقول له waaye yam doylu foofu mi ngi naan Cheikh Oudou Fadal bi ñu ko présenté ba noppi ki mu doon mu ne saa boo ñëwee ci sëñ Fallu nag jëratul ngay tiit jëratul ngay am looy ragal lu sa aajo rëy rëy soo ko waxee Cheikh Oudou Fadal dana daal di faju xufidat xufidta min kulli ma taxshaahu min dararin wa min humumin fa sirta al yowma muxtanima nee loo fi mën a indi rek ñaar doomu ñaar dong la am mooy lu mu bëgg di ko xëcc ak lu muy ragal di ko jañ nee na boo ñëwee ci sëñ Fallou looy bëgg di ko xëcc na sa xel dal da nga ko am looy ragal di ko jañ na sa xel dal te xam ne dana dana saafara mooy dama yu gudd la waaye ginnaaw waxtu bi dañoo dañoo ñettamal duñ ci bëgg indi lu lool sori loolu. Mouhamadul Mukhtar Ibn Muhalla moom it jamono bi Cheikh Fallou wax na ci moom yu baree baree baree bare ci yuy mandargaal melokaanu Cheikh Amadou Fadal radiyallahu anhu waaye nag. dañ ci ñëwit moom it ci tuuti rek am na fi wax ne moom day gis na ne bu Cheikh Amadou Fadal mooy jëmm joo xam ne ak joxeem xameewu ci kum xam ak kum xamul xameewu ci mbokk ak ub jàmbur xameewu ci mbokk dëkkandoo ak ub doxandéem nee na buy joxe moom yàlla mi tax mi ko jox mi tax muy joxe rek moom lay bàyyi xel ci mboolem aw aw aw joxinam ميلادي خذنا بلادي dellu ci wat ci serigne mam Cheikh hamza siyaare ko siyaare délégation bi mu andal bépp fasiyene yéene jëfe ndigal li ci barke serigne Touba man di ko ñaan itam bu ma jox bu ma jëfee ndigal li dal ko jëbal kaddu gi mu may ma rek ma joxe addi ci serigne fallu Mbacké yetti bëyit door a jàng ndigal li serigne fallu dama waxoon ne ni mu tànnoo ci ab juddu ni la yéemoo ci ak dëddu dafa soppan muhammadu boo ko soppee mu soppi la li mu doomoo ci ay jirim li mu jox nit ci ay dërëm li mu muy leeti ci deram ku ko xam-xam ne kër ni la ku ko sukkal muful sa jëf ku ko sikkal boxam sa yëf moo tuddal magam teyit ku fa dem xam ne moom ci la بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وخديمه وامته اجمعين الحمد لله تيجي سنت ورناتي ngir yalla mayna nu tayyi khayran min nati ngir yalla mo fa ca tawfiqam ya def ko ci nun ban tewé bes bi nanuy santé atiyati bég nan suñuy bopp bég tey jii ci jëf ju rafet ji bokk yi def ba tax muy way ba yit yéeti waa kër sëriñ fallu tey ñoo def lu jekk te jub ngir lii ñu jagleel borom gaawaan rafet naati besub sëriñ fallu bu ñu koy tudde bii xaritam ko xam rafet lu ko ngir seen ànd boobaati daaru salaam bég na tuubaa bég ci lii ñu Cheikh Fallou bég na te it Cheikh Anta bég naati ànduk Serigne Fallou ak Cheikh Anta day lu ñu xam ngir day lu ràññiku laakin fikruhu aati danaa ci fàttali waa juy déglu yu mën a roy insaa rabbil lasi yoxtil masiyaati danaa ci wax tuuti ngir wax lépp dee su ko man islayta yumkinu an yuhka bi ab yaati Cheikh Fallou yàllaa ko booleeg Seyxu Anta bu wér cheikh bamba dëppale seeni mbir mu yemeti ngir at ma bamba maye cheikh ante mi ngeureumam moy at ma cheikh fallu feñe fi fi duniyaati daru salam gam feñe yit mu may ko serigne gawan atuk wasatin tarikh ba wér cheikh fallu fi laylatil israa nag la gané dunya fa daru salam yam ba tax na gii guddi fu mu dikkaa mu dikk fa ngir màggal ko dundal ko tey def ay munaajaati ma dellu wax leen yeneen tegtal yu wér yu ma xam ci say xifaalloog sëriñ gaawaan mu wóor laati ñoo ànd dem makka aj dem tay ba maa fi atin siyaare yonnen ba ñoo àndit ba del seeti Cheikh dem sëgu am fay at ñu namm ko nag Cheikh Fallou Diop dal ne bàyyi Cheikh laa di ñëw seeti madina mbooba la jóg dem sanc ngir bëgg a am kayit yu tax ba mu man koo seeti foo feeti ci weeru gàmma la sun maam lu yëg si segu gis sii di gaawaan te naa yow laa di jël seeti ngir yaa demoon fekki sëñ Tuubaa keroog fa Gabon moo tax ma ñëw file tey fay bor ba war naati Cheikh Fallou nekk fa ab diir Seyxu ante di bég xolam ba sedd mu tàggoo del si tuubaati rakkaati gàmmo rakkaati gàmmo woo maam Cheikh bàyyi ko si bu ñëw daaru salaam yi keroog Cheikh Fallu bég naati noonu la àndeek borom gaawaan ku ney rafetal fonkante doy loonte lañ def kulla saamaat yi xam nañ ne nun mënunoo lim lépp luñ mos a def nan far taxaw lu ne wax jii rekk doy naati bur yàlla yàlla na tawal Cheikh Fallu ak xaritam seex Anta waamee ngërëm fii kulli aw xaati te yàlla na fa fan wu gudd wér di xëpp ci nun may nuy ngërëm ci sëriñ Tuubaa mi doy féete summa salaatu bi taslimin yusayihuha ala allazi misluhu fi lxalqi la yaati muhammadin afdalil axlaaqi kullihimo wal ali wa sahbi man faasu bi jannaati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin barke sëriñ Fallu alhamdulilahi rabbil alamin الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلق الجن والإنس والصلاة والسلام على خير الإنس والجن وعلى خير جميع ما خلق الله تبارك وتعالى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ محمد المأمون الحاجي سليم تكفو njabootu الشيخ محمد الفاضل bi toog maanaam أمتا مو يبل سرين مور فاتي مكة أك سرين أبو قابل مكة أك أبو مكة كي سرين أبو بركة خليفة الشام فاضل أطار